asalaamaaleykum mbokku Linguère fii moom dafa mel ne gagné nañ ko ba pare. fii moom jeex na wëree wa dem na kën la coalition Diomaye gagné na Linguère ba pare incha allah. waane nag dañuy fagaru na ngeen seet seen carte électorale. fu mu nekk ngeen génne ko bu dimanche incha allah ni ko xale yi waxee bu ngeen yeewoo teel xabda ba pare julli suba dem wote ji bu ngeen demee bu ngeen wotee ba pare bu leen ñibbi parce que weeru koor la ñu nekk Jolof tàng na toog leen ca kër ga bu 6 heures jotee ñu commencé di wàññi jomaay jomaay jomaay jomaay jomaay jomaay jomaay jomaay ba mu des weccit feesee weccit mu defar biberon Sénégal yomb naa defar ñun fukk juróom-ñetti million rek la ñu li ñu yàlla may ci xéewal xajut ci ñun mais dafa fekk ne tout simplement loxo yi mu nekk moo dul loxo yu baax bu ñu waxee ñu ne expérience expérience expérience expérience su luubal expérience su duñu wax dëgg expérience su antidémocratie expérience ou mal gouvernance. Il faut les dégager et mettre le projet pour que le Sénégal se développe. yaakaaruma woon ne ci jamono ji ci weeru koor wii ak ni ma gañee yëngatu ci politique su ma ñëwee da ngeen ma teertu teertu bu ngeen musul teertu kenn man yéen laa bëgg man yéen laa bëgg man yéen laa